loolu moo tax sax euh, comme li ma loon expliqué sax absolument ouais. non c'est, euh, c'est-à-dire que euh, état euh, ay la mu leb xaalis leb xaalis tey jii bu ñu doon ni xool état bi dàq leb ci xaalis xam nga ban dëkk la Japon est-ce que comprendre ça veut dire que yow tey jii même business à titre waxuma la état yi nit laa wax nit nit tey jii boo yoroon cinquante mille nga bëgg a investir économie dëgg mayu la nga jël sa cinquante mille yëpp investir ko xam nga économie lan la la jàngal hmm. nga jël trente mille yi c'est-à-dire li nga war a investir xam nga cinquante mille la te yow cinquante mille nga am sa poos xam nga économie lan la lay jàngal hmm. da ngay jël trente mille yi nga investir ko jël vingt mille yi nga dem banque mu lebal la te pourtant yow xam nga am nga cinquante mille mën nga ko ciy xëpp mais économie booy def économie doo ko doxee noonu doo jël yëpp di xëp da jël yenn yi sur fi na fonds propre nañu tuddee fonds propre yi ci des nga dem leb xaalis dugal di continuer kon donc état dafay leb loolu loolu du problème première chose j'ai pas bien compris la nature de ta question est-ce que tu veux parler du taux directeur est-ce que tu veux parler de la pertinence de la dette c'est ça wax ma ci ba ba pare nga de très bien bu dee la pertinence de la dette loolu mën nañ ko expliquer parce que xam nga lu tax hmm. euh, nguur gu bees moo fi ñëw ban année la ban mois la ñëw mars très bien xam nga mars lan lay sem lan lay coïncider hmm. le premier trimestre en finance publique xam nga mooy lan mooy euh, bu ñuy alimenter keesu état yi hmm. par trimestre nañ koy alimenter. ñetti weer maanaam. ñetti weer mars la kon donc ñii bi ñuy ñëw au pouvoir fekk ñu fi dërëm est-ce que nga. Hmm. li ñu waroon a li ñu leen alimenté woon ñu waroon cee jël di ci soox ba keroog ñu leen di alimenté waat hmm. ñi ñu fi remplacé dañ ñu ko fuux mu dem est-ce que comprendre nga. Hmm. pendant ce temps banque mondiale FMI taxaw di leen wax ni yokku leen courant. yokk leen essence comprendre nga pour ngeen mën a am benn recette parce que yéen yéen a ngi commencé def ay subvention boo ci jëm ci produit agricole et cetera ñu ni ko non non non yow loolu nga ñu conseiller mais ñun du ñu def loolu on va maintenir les niveaux des prix est-ce nga mm. li ñu mën a wàññi ñu wàññi ko li ñu mënul te wàññi mais ñu téye ko ba du yéeg ñu dem ñun lebi xaalis est pour ñëw def politique yi ñu bëgg c'est-à-dire que euh, du dañuy pompe askan bi pour mën a am xaalis bi ñu bëgg hmm. déjà kon donc en terme de choix budgétaire demoon lebi xaalis moo gënoon fuuf def li banque mondiale FMI euh, bëgg parce que ñoom bu ñu defoon ñoom li ñu bëgg mooy courant day yokk carburant day yokk te loolu bu ñu yokkee rek ci chaîne de valeur bi yëpp lay topp léppay yokk te ñun dañu nekk ci logique wàññi est-ce que comprend hmm. kon donc téye fa prix yi yi ñu mën a wàññi ñu wàññi leen yi ñu mën a subvention ñu subventionné leen dem wuti xaalis dem kon donc c'est une pertinent c'est pertinent en termes de démarche mais mieux taux bi nga wax nii. cinq soixante quinze. Hmm. c'est actuellement le taux du marché sur les places financières. te pour pourtant Sénégal il y de trois mois quatre mois on était à deux doigts d'une guerre civile or pour celui qui connaît connaît la finance publique et comment les marchés mondiaux fonctionnent bu doon beneen dëkk bu dul Sénégal tey ji bu demee di leb taux bi day jóg xam nga lu tax parce que il y deux mois on était à bord d'une forme de guerre civile lu neex mën soon na fee xew mais taux bi waaw non non waaw 7 5. waaw 7 5 laa la bëgg expliquer waaw 7 ah. mais c'est c'est le taux du marché actuellement. Hmm. et là même le Sénégal a fait une prouesse xam nga lu tax. Hmm. parce que dëkk yi dafa am benn taux de marché maintenant sa exposition par rapport au risque. Hmm. ci la taux bi di yéeg loolu di wàcc. ñun normalement on devait pas avoir 7 5. justement on devait avoir même plus de 7,5 xam nga lu tax. ñuy taux bi gënoon na ci bi fi jugee ki fi jugee. déedéet déedéet non comprendre non non non non ah, bu ko bu ko non les contextes ne sont pas les mêmes. 2021 bi Macky Sall du 2021 ngay wax. Macky Sall bi muy leb 2021. waaw boobu duggaguñ sax suñu problème yi. comprendre nga on avait une forme de stabilité d'abord un à la faveur de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent on avait connu des résultats extra exceptionnels ñu ni taf Covid dugg. est-ce que nga mais le Sénégal était dans une tendance et c'était normal mu jël à un prix même plus bas que le prix du marché parce que on était dans une tendance Covid bi rek te un phénomène extérieur la hmm. donc les contextes général ne sont pas les mêmes maintenant bii ban contexte nañu nekk dañu nekk ci dëkk boo xam ni on a frôlé la guerre civile normalement tey jii bu fekkee le taux de marché c'est sept cinq yow nga nekk benn pays boo xam ni mooy il trois mois quatre mois yaa ngi nekk guerre civile les gars vont te prêter à dix onze maintenant lu ñu leen dul wax mooy. malgré que il trois mois ci ginnaaw on a frôlé la guerre civile mais ñi ngi ñuy lebal au prix du marché. ah ah ça dire que les gens ont confiance à l'économie et aux politiques publiques que nous sommes en train de dérouler. est-ce que comprendre parce que ñoom bu ñu amoon yenn risques yi le taux dana romb sept ay onze lay dem. ba dix parce que dañ naan ñii boo moytuwul dañuy plongé waat donc y aura des retards de paiement donc man naa ko fayee ko fii est-ce que comprendre hmm. mais boo gisee ñëw malgré les risque que le Sénégal parce que y trois mois grand yàggul y a trois mois ah xam nga Macky Sall bu mu bu mu bu mu annulé suñu élection est xam nga quel a été le premier signal sur marché marchés mondiaux le Sénégal était euh, considéré comme un pays à risque le fait que la seule décision politique de Macky Sall d'annuler les élections a fait que le Sénégal est classé comme un pays à haut risque mais Macky bi muy annulé élections yi ak les grands ça fait même pas trois mois quatre mois bi ñuy génn ci programme yooyu te dans les classifications euh, sur les marchés mondiaux pour ñu mën la génne ci benn classification jóole benn classification il faut minimum un semestre mooy six mois c'est-à-dire que bu ñu lay observer tey pour mën la génne fii. Mm. dugal la fii il faut le temps d'observation c'est au minimum six mois ñu observer daal ni bon voilà maintenant le risque et géré et cetera mais ñu y même pas trois mois on a frôlé le pire. ba ñu considérer un pays à risque mais léegi considérer nañu comme un pays pratiquement zéro risque comme yeneen dëkk di ñu lebalee au même taux kon donc yow soo ko jëlee sur l'angle d'emprunt moo gën fuuf li ñu banque mondiale FMI euh, bëggoon lu def mooy ñu aussi kii bi boo ko jëlee ci taux bi actuellement nii tu peux pas trouver un meilleur taux que ce taux là parce que c'est le taux du marché ñëpp ñuy leb ci taux bi nañ leen di lebel kon donc ñi xamul ce que comment fonctionnent les finances publiques et les marchés mondiaux ñoom ñoo ciy gis problème parce que mënuloo ko comparer ak ce qui s'était passé en 2000 2011 oui mm. c'est pas ça le plus important lépp mais c'est la qualité de la dépense. ah maanaam boo lebee ba pare ci fan nga koy dugal looloo am solo. nga jàpp ni fan lañ koy dugal ñoom. mais sur le tissu économique mais euh, d'ailleurs xam nga ñi ngi lancé campagne agricole bi. Euh, le régime en place c'est très bien le régime en place wax na la ni carrément dafa am volonté réindustrialiser suñu économie et donc ça veut dire que pour l'essentiel de ces montants la dañ koy nar a yóbbu ci euh, faire redémarrer le tissu embryonnaire parce que Sénégal en fait amoon nañu petite industrie mais après dafa dee woon maintenant dañ ko war a suqalikuwaat ce n'est pas la même façon que lu amul woon du tout c'est que loolu moo nag suñu chance Sénégal amoon na fi industrie une petite industrie dans les années soixante-dix euh, même petite et moyenne industrie dans les années soixante soixante-dix mm. à partir de quatre-vingt nañu tas donc il y avait des embryons. Mm. maintenant dañuy def de ce qu'on en finance de la restructuration industrielle. comprendre oui. Hmm. adapter les unités de production par rapport à la réalité technologique du moment et par rapport aux défis et au marché de l'heure kon donc xaalis boobu lu ci bari. ci secteur industriel ou réindustrialiser le Sénégal ci foofu lay dem ko bokk na ci agropole yu ñu annoncé. absolument ba ci production euh, tous les secteurs mais daal jàppal ni. Hmm. le secteur industriel parce que l'une des volontés fortes gouvernement bi mooy bu ñu reglee affaire yoon ba pare. l'autre chantier ce sera la l'industrialisation de ce pays là. Mm-hmm. waaw en faisant passer les ressources agricoles. Euh, de l'agriculture à l'industrie donc de l'agro-industrie. Donc on, euh, le principe fondateur, ce sera d'aller vers ce qu'on appelle les agro-industries. C'est-à-dire que di produit li ñuy dundee ne serait-ce que li ñuy dundee di ko produire fii. di def les débuts de transformation si on peut faire la transformation complète tant mieux mm. si on peut faire la transformation intermédiaire aussi tant mieux mais dinañu produire transformer d'accord loolu dinañ ko xaar pour xool fan lu ñu yóbbu